on démarre tout de suite 30 secondes 30 secondes. 5 secondes vas-y merci 5 4 3 2 1 c'est parti. Il est 7 heures bonjour c'est votre matinale on se retrouve comme tous les matins ci seen télé ñu ngi leen di nuyu gërëm leen te di leen ñaanal bëccëg bu neex tey nag ñu ngi àndandoo ak yéen ba 10 heures comme ni ñu koy defee suba ko jot man ak ñi ma ciy àndal Maïmouna est là ce matin Kia est là ce matin Alfie est là ce matin. On parlera cuisine avec elle. Vous aurez le journal, la météo ak quelque conseils pratique qu'on vous propose comme tous les matins. Alors Maimouna moo ñuy indi lépp lu jëm ci wàllu économie li ñu tuddee koom-koom Kia dinañu waxtaan ak moom ci wàllu liggéey ak seen rubrique Jóg Job alfi moo ñuy indil euh, togg bi Bijou euh, nekk fi tey ñu ngi jéggalu ci ay coup de Ah, apparemment, elle la là. Tu étais où, toi? Bijou est là. mais moom fan la nekkoon elle nous propose ses coups de waaye ñun tamit am nañu ay coup de cœur suñu coup de cœuru tay bi nag moom lañ leen bëgg a yeewee euh, ci seen tele ci seen matinal bu ngeen ko seetaanee gëm naa ni di ngeen yeewu bu baax àndandoo ak ñun fii ba 10 heures dañ leen di bàyyi ngeen seetaan ko bu ko defee juste après ñu dellu si waat ci plateau bi comme ça mën a seetaan. Eh, mais fallait pas est-ce que tu te sens mieux. yaa ngi tane. ni ci la ñuy wax. peu importe bijou ak lu mënti am li nga def ci dëkk bi kenn mënu koo baal waroo woon ñëw ci télé bii. c'était mieux que je yaa ngi sóor li nit ñi di wax ak commentaire yi yooyu est-ce que yaa ngi koy sóor mais tu devais pas être là tu devais reposer tu devais penser à toi bijou. t'avais pas ta place dans cette émission ce matin fallait pas venir ak li dëkk bi di wax yëpp war a woon ñëw est-ce que yaa ngi koy soor commentaire yi laa si doon bañ a wax. commentaire tu devais penser à toi que de venir sur le plateau travailler. c'est pas grave je lu ngeen ni ngun-nguni nii sànq ba léegi. de quoi vous yow lu ci sa yoon ñaari mag yi waxtaan loo ciy duggee. ah yaa <laughs> ah, yow da ngaa sopp ah. kii dafa sopp bu tontu bu ko tontu on reprend l'antenne on reprend l'antenne les on reprend l'antenne ci suba ak léegi ñu ngi àndandoo ak yéen ba léegi rek ñu leen di ñaanal bëccëg bu neex ci euh, télé bi matinal bi nga xamante ni moo leen di yee benn la fii ci Sénégal alors euh, ginnaaw bi ñuy àndee ak Maymuna ci euh, koom gi kii Kia ak Job ñu ngi waaj a dem ci Alfi ci waañ bi mais d'abord dañuy dem ci coup de cœur bi bijou comme d'habitude diggante Nigéria Sénégal États-Unis fu ne ngay dem

mu am ci monde bi yëpp kenn xamul naka la toll donc clip bi c'est tellement romantique nañ ko seetaan après ma ñëwaat ci paroles yi parce que man ça me touche personnellement. yow wéeroo sax <laughs> on ba tey maa ngi lay ngay jàmb sa pat mais sa pat dëll na de. pâte y' a pâte du monde pâte du pain au raisin. ah bii di dem ci pain au raisin Pape Cheikh. mais normalement euh, dafa war a am différence bu nekk ci pâte yi euh, parce que gis naa des fois nga defar bu tàcc yenn saa nga defar pâte bu dëll. pâte bu dëll moom amul njëriñ parce que togg bi day yàgg temps de cuisson bi day gën jël temps. d' donc comme que bii dafa dëll sànq. ci mhm. tàccal ko laa jëm parce que dama koy dër. Mhm. ba mu tàcc ma soog a ci def sama ay éléments pour mun ah. ko enfourner tëll ak bu tàcc. waaw gis nga. bàyyi leen retard ah. yéen tamit ñu ngi en da ngeen bëri ay caaxaan quoi bisu Ndiaye kii ay dara may mun a franchement. yéen daal il faut ma il faut ma dàq leen ci émission bi. Eh, voilà mais sunu ñu koy defee ci dañuy jël farine bi. Mhm. def ci tuuti levure. Mhm. Euh, def ci sunu meew. def ci tuuti beurre euh, moom la ñu jàmb. ba am euh, texture bi ñu soxla. waaw léegi dañ koy étaler rek. pour mën ci def sunu crème anglaise bi ñu defal ci suba def ko ci frigo bi muy sedd. donc suñ ko étaler ba am forme carré bi ñu bëgg. def ci sunu crème pâtissière. Uh-huh. soog ci def sunu ay raisin Pape Cheikh ko pour mën ko dagg euh, togg pain au raisin d' accord léegi en attendant nga koy togg dañuy jël suñu xaritu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan ci téléphone bi yéen mën ngeen woote kenn ku nekk ñu jël la ci biir seen matinal bi Yeewu leen c'est fini pour aujourd'hui ñu ngi leen di gërëm bu baax merci à toute l'équipe merci ma merci Pape à demain. non ah, ah, lundi sama doom ji. oh kon ba lundi ah? lundi incha allah lundi boo ñëw na nga pes nag d'accord na ma pesel pes bu baax ah del pes rek yo bu na kon ba lundi merci Kia. a beaucoup cher Adouma. merci beaucoup Alfie. merci beaucoup cher et bonne dégustation. toute l'équipe de production jox rendez-vous suba 6h45 pour gunge ci seen matinale bonne journée à tous. Pas bijou s'il te plaît. pas cher. waaw doo lu ma lay dégloo. xanaa da nga fàtte ni maa ngi woon fi nga nekkoon j'étais là-bas amuloo loo mooy expliquer déjà xaw nga yàq sama émission loo may expliquer. ok mais depuis incident bi ba mu amee ba léegi man ak yow ñu donc bàyyil ma expliquer la di. mais lu ñuy wax man ak yow loo may expliquer laisse-moi le temps de digérer tout sa aw ma lu may wax ak yow bul ma expliquer quoi que ce soit s'il te plaît. Well, Chef. Ah? Ça ba tey maa ngi dégg ngeen ni ngeen di ngawti ngawti suba ba léegi yéen lan la ba xam. Pape Cheikh la rek day jël benn histoire bu amul benn sens bëgg ko may sens boo xam ne kenn xamul fan la toll. mais Pape Cheikh mosuma ko gis mu meree nii bijou du dara de c'est la dernière fois dañ dem boîte. Mhm. mu ngi nekk comptable m je suis pas allée à sa table en plus par malheur ma am fa benn gastro. Mhm. moom moom ma yóbbu hôpital et puis depuis lors dafa mère c'est tout loolu kese la. c'est ça loolu moo tax muy xaabar xaabar yi nii kii. en fait yow xam nga Pape Cheikh il est super dafa xalaat que ni man su ma demoon table am dara du ma jot que genre dañ dugal dara sama verre ou je sais pas des choses kam ça quoi lool lay xalaat instant bi loolu tax mu mère. man de jaaxal na ma bu ko gisee muy surtout muy fërti fërti léegi di dem ni mais yow yaa ma gën a xam Pape Cheikh il en fait toujours tout un plat histoire bu ndaw da kay yokk ba mu sës mais y a rien loolu kese la. c'est tout tu le dis. maa ngi dem gis Khadija parce que j'ai besoin de répondre. ok non je vais pas tarder. allez à demain. am na lu muy nëbb. ah mais je sais qu'elle nous cache quelque chose waaye <laughs> du man maay kii ah. baax na. j'y vais man. Bijou, viens s'il te plaît. Okay. Pourquoi je t'appelle depuis tout à l'heure Tu me réponds pas, c'est quoi le problème Bijou, hé, eh, hey, yo la yoral. Hello Je parle avec toi, pourquoi tu me Yolan là, qu'est-ce que tu veux Bijou, c'est à moi que tu demandes là. Je t'appelle depuis hier, tu décroches pas après M'appelle pas. Mais pourquoi tu veux Apparemment, tu n'as pas compris. on a des choses à se dire est-ce que tu en es consciente. j'ai rien à te dire dama ñëw ba fii pour je suis pas venu pour. j'ai absolument rien à te dire. comment ça tu n'as rien à me dire il faut que il faut qu'on mette les choses au calme du jour. ça veut dire quoi j'ai rien à te dire. aw ah, ma lu ma lay wax. en fait j'ai j'ai une question euh, tu me reproches d'avoir fait quoi en fait. fan nga nekkoon Cédric fan nga nekkoon bu ma la soxla est-ce que tu sais de quoi tu parles Bijou. sois plus clair s'il te plaît je ne sais pas de quoi tu parles. je ne sais pas de quoi tu parles. non je ne sais pas de quoi tu parles. Cédric, tu savais très bien ce que je, je devais aller faire. Tu savais très bien fan la naroon dem démb. Et ce bébé, il était à moi et à toi aussi. Donc waroo ma woon bàyyi man kese may traversé lii. Donc waroo woon waay. Calme-toi, calme-toi. On va discuter comme des grandes personnes. Écoute-moi. Tu m'as donné de l'argent, tu crois que ça suffit? Justement, parce que tu en avais besoin, ma jox la xaalis. Et alors, tout le monde pouvait m'en donner. Tout le monde pouvait m'en donner. Je m'en fous des gens là. Cédric, j'avais besoin de toi à mes côtés. J'avais besoin de toi pour traverser la pire okay, chose qu'une femme puisse traverser dans sa vie. T'étais pas là. Maintenant, j'ai rien à te okay, dire. Me parle pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Je parle avec toi. Tu m'écoutes. Lâche-moi, Cédric. Calme-toi. Lâche-moi. Je pas avec toi. Bijou. Tu te calmes. Ok. J'ai rien à te dire. Lâche-moi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Demba Yacine Sakho rek Baba Yacine Sakho alfi bi ca bala pos bi ci def Demba sa taasi Omar Waliwi. ay yow sama xarit bi ana sama waa ji. ana ki may wër. ana ki may daane ana ki ma bëgg. yoonu nuy naa la. naa mbaay mbaay ki jàmm. mbaa tëdduloo. naka bokk yi. naka njaboot gi. kenn tëddul. kenn wëppul. kon neen sala nee naa salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatulah. alhamdulilah. jeena mbaay. <laughs> waay mbaa réeruloo bi ngay ñëw ndax xam nga ne danga nga fee géej waaw maa yey géej fi nag waaw gaa damay doog am damay doog am feu vert pour ñëw mais amoo benn problème déedéet maa ngi naan nag kër gi dina changé ci yow ndax dootoo fi xam déedéet déedéet xollu ci njëkk tëj waaw loolu am na xollu ci njëkk tëj loolu dëgg la loolu la te maa la bëgg premier plat lu ci tegu dessert la ah waaw nga ne ko maa la bëgg ah. premier plat lu ci tegu dessert la damaa xam ne dafa am ku fi nekkoon rek bàyyi ma waaye ginnaaw takk nañ bagage sam ba dem man am naa faveur pour ñëw. ak jëf jëm ma def ak jëf jëm la def. mbaay moo tax rek may naa toog xamaay xaar naa toog rek di xaar. Eh, waay mbaay dama bëgg a ci xoolal lii ba xam. lii nga indi waay yooyu laay def. <laughs> macha ah. ay waay nii la. jigéen boo nekkee moom da nga xool ca la muy liggéey nga jàppale ko ca. kooku gerte kemb la. boo booy gerte kemb gi. Mm-hmm. waa lii kañ la ñor mango. aywa tam ci samay pexe la bokk. allahu akbar ci samay pexe la bokk macha allah maa jaral dem ba puut macha allah mm-hmm. ah indi nga orange tamit ah, ay waay ay waay lii de ku mu ku mu dawul yaram du dootul daw maa ngi lay wax déedéet ah. ren la ah, njëkk am première catégorie yi njëkk a ñor nag ci la bokk bii nii maa la mel na ñamal ñamal xool tegal lii de ma neex yow. waaw. laa ilaaha illallah. mango jàngoo mbaay ew waay xanaa sa xol war naa sedd xanaa sa war naa féex mbaay ay ca te gën a gaaw mbaa jàmm lu xew ana waa kër ga mbaa ñu ngi si jàmm ah mbaay lu mbaa jàmm ah waay ca te gën a gaaw onse billaay mi na saytaane cat Voi ihan lähti. Je sais pas ce qui s'est passé mais am na lu xew li tax Pape Cheikh nanguwul sax wax ak moom. soxna si ko waxal man ah. déedéet sëñ bi waxuma ak yow ne dama nekk di xalaat nii. <laughs> li xalaat bi ñëpp a koy dégg. xaar. Ah, comme ñii lii lañ ma doon nëbb <laughs> ñii nag dañ ma desee xam ñii dañ ma desee xam. mais ñoo ñaan la noonu soxna si. oui sëñ bi waxuma ak yow. ah sànq ba tey maa la naan waxuma ak yow lii rek ngeen fekk nit ku nekk ci xadaram ngeen boole ci lu ci bokkul dawal rek ñu dem. soxna si yow da neex de. <laughs> joodo demba yaasin saagóor baaba yaasin saagóor al fi ci balakoos bi ci ndax demba sa taal Cheikh Omar wàllu wi loolu yëpp dëgg la mhm. loolu yëpp dëgg la waaw yow xam nga ne fu mu nekk nii dafa am ci période bu ma toll ñëwal yow xam nga ne lii waaw sama table jii waaw moom ci laay ci laay ci laay sante yàlla. Mm-hmm. sama table ji ci laay wuyoo ji samay nawle. waaw sama table ji. ci laay sagoo. waaw xam nga ne table ji boo ma indilee sindeem indil ma orange. Mm-hmm. indil ma gerte. ñëwal. wax dëgg yàlla indil ma solom. waaw indil ma orange. waaw am na loo xamante ne nag war na ko war nga koo mën a xalaat. loolu lu mu doon. xamoo ko. lana xam nga ne ci période màdd lañu nekk. ndey jale daf may laaj màdd. bu fi jaaree ak otoom. waaw Fatou Gueye Sarr daf may laaj màdd bu fi jaar ak oto Adja Maam Ngone sa daf may laaj madd waaw ah procureur laay Ba daf may laaj màdd ñool pour yóbbul ko ay njabootam ñooñu ñëpp personnalité yooyu yëpp ma leen di jaay madd mënoo fexe ba indi madd te nga xam ne ci période madd la ñu nekk te sama njaay mi ci laa amee li may am waaye kaay ma tax indi woo madd waaye kaay man mbaay yow yaay sama xarit mbaay ñi de moom bu dee nit garaaw dana dinaa laajte léegi dinaa laajte léegi fu màdd ñore jaral na ma laaj sa procureur Abbas Wan. ma laaj ko fu mat dañu waxal te bu ma laaj. yow waaye yooyu sama xarit Mbaye. aal ma bool bi. baax na merci abal ma bool bi Mbaye. moo mat mat matale Mbaye. nga ne ku xam ma matal li ma yor lu ma bëgg. ñëwal Pape nit boo ko bëggee da ngay xool li mu bëgg nga ko ci jàppale. waaye tubaarkàlla Mbaye. te olof nee na ku xam juróom-ñeent neex a jàngal fukk. juróom-ñeent ñëw na ana fukk ya. waaye tubaarkàlla Mbaye fukk day mat léegi fukk ñëw. andi matal ko mat mat matale matay ma matal li ma yor baay mat mat matale matay ma matal li ma yor. maa bu beneen yoonatee di nga indi madd ji. day ñëw. madd ji ci boppam. su ma indee orange. waaw indi mar. waaw indi la sidde. waaw indi la gerte. indi solom indi solom. waaw kon madd ji moo ci des. waaw madd ji ñu ko say commande bari ci madd ji. waaw madd ji des. waaw dama koy mottalee bool bi. tàggante ma su ma jëlu see mbaay mu gën see neex mbaay yaay sama xarit moo gën de su ma jëndee sa te ngeen may la soko si mbaay forom bu tabax kon acca eh, ta se mbir dem tal ko daanam ay sa e eh, waay mbaay juróom ñeent ñëw fu ko ñëw na mbaay tey ma matal li ma yor eh, ay e matale tey nga matale li nga eh, eh, matale e mat jeey matal li ma yor e mat mat ah. yow yaay sama xarit xoolal miratuma tabaarkalla xoolal bi mu ñuulaay waaw tabarkalla laaw la cet macha allah mel ni yow yettu jàlla mbaan ndeysaan bu ñu diw mbaa du weer ko ci naajum njolloor weer ko ci naajum njolloor xam plus ta copine y avait le bébé qui nous liait il est plus là c'est fini oublie que j'existe et puis elle n'est pas comme certains kii du daw tu veux dire quoi par là chef waaye xam nga li may wax dofoo jinne jàpp la doo ëmbal doomu jaamur ji ba pare daw moi je pense à elle à sa carrière ma li ma def pour pour entretenir notre relation nga wax ay damay n'importe quoi dis plutôt que t'as pensé à ta carrière ah, à ta famille et à ta vie sale égoïste va wax un égoïste est-ce que tu dit à ton copain que tu refusé le préservatif est-ce que wax elle t'a pas dit ça yaa ngi di wax depuis sànq ba tey tu sais même pas ce qui se préservatif tu es folle ou quoi yow xamoo sa apparemment tu la connais pas depuis tout à tu parles parle à ta copine. T'es un Si je tenais tant à toi, Oas bébé, tu penses que je eh, l'aurais tué Je te déteste, t'es que salopard. Eh, eh, t'es que salopard. doy na doy na maintenant tu dégages ko def. dugal sa oto nga dem sa yoon. maa ngi dem mais lu ñu wax si yéen ñaar ngeen bu baax li may wax lu presse bi di wax yaa ko ëmbal n'est-ce pas. kan moo ko ëmbal. lu ñuy wax si yéen ñaar. y a ko de nom quoi vous m'avez bien entendu yéen ñaar. yow defe naa da ngaa dof. di génn télé siiw ñëpp xam la ngay xamanteeg indigènes yi sagaru nit yi nga xam ne tekkiwuñu dara toroxal la ba pare yàq sa der man tam ma taxaale ci. Père Cheikh je croyais que. ban confiance yow dëkk bu toj bii léegi nga am confiance. mais bu ma koy xool je pensais pas qu'il était malade enfin je sais pas mënuma je me disais que. feebarul dara jotul ko. yow kan moo la wax waxu maladi ku la ay waxu feebar. yow est-ce que Bijou wér nga depuis ce matin tu m'énerves mais comment peux-tu faire ça sans te li nga jàng fan la la jaar ay France laa jàngee je suis intellectuel boo toogee ci plateau bi di jaay nit ñi xam-xam ak tubaab ndekete yow xamoo dara cervelle vide dëgg nga yow yow ndeke xamoo dara. j'avais juste confiance en lui c'est tout c'est. oui mais confiance bu mu ëmbal la waxuma sax grossesse bi mais imagine ñaata xeetu feebar nga mënoon am à cause de ce. lu ma ko bëgg a wax xeeb ko. j'ai jamais pensé à ça en plus je pensais pas que j'allais tomber enceinte. non mais Bijou Ndiaye ah bon viens je t'amène chez toi je t'amène chez toi. waaw ma koy may njëkk nag boo ma takkee Pape. ak kay xanaa maam Diarra Thiam Porokhane boutique. maam Diarra ak kan. kay ak keneen Abdou ak kan. keneen Abdou Thioune laa la ci mooy deuxième njëkkee ba. tegal ma ci ndey te nañ doy. ay la ilaha illallah ma ko ci tegal. yàgg na. ah kon nag. oui ñaata njëkk nga bëgg. bëgg naa juróom-ñeenti njëkkee Ndeye Jalle. waaw Fatou Gueye Sarr. waaw. Euh, Adja Maam Sis Fall. ñëwal ak Adja Maam Ngone Cissé. ñëwal ak doy na sax doy na ñooñu doy nañu. tànnal ko la saf. ñooñu doy nañu ak Uli. Thiès waaw takat kaay sama benn jigéen. waaw daf la xam naa ne kooku kooku dafa ma bëgg. mooy kan di sama xarit Fatou ne waaw Fatou Kiné. Hmm. Fatkine Ndour. waaw Fatkine Ndour mel na. waaw bu ndey soxna Mbow. waaw waaye xam kaay moom laa jëkk a jiital def ko sa premier. kon Fatkine bëgg naa la mat mat. matale. waaw waay ndaw si xaw lu tax buy dem di yóbbu caabeem ah di sonal nit ñi lakkat lakkat eh, Kya. comment vas-tu? ça bien. yaa ngi ci jàmm. ça va et nii nga def. sañ sa de defar ba mu hmm. Kole dafa koy xaar. Pape Cheikh da lay xaar àndoo li ngeen ni ma day baax na. maa la nopp mi ngi ñëw na. maa la nopp fii la ëppee moo tax ma dagg samay soxla maay ñëw. billaahi. te kat kaay euh, joodo. yàlla na nu yàlla lafal ca. ñàkk naa sax fu mu nekk nii. da koy jar mbaay. jaral nga ma ko man sama ñàkk sax da nga ma koy jaral. jaral nga ma lu ko balaa feeñ dëgg dëgg dëgg. waaw ñay waxtaan. waaw seenu ñàkk feeñ. waaw bu ñàkk génnee. Mm. seede la ci bëggante. ndax wëñ euh, euh, xam nga Pape. ñëwal. lii olof naan mbëggeel weñ guy taaweeku la ñaar ñu ko xëccoo ku ci njëkk bàyyi gaañ nga sa waaw bul ma bàyyi bu ma la bàyyi maa la bëgg kàccoor baa ko way Fatou Gueye waaw ay <laughs> Fatou yal na yàlla dolli jàmm waay waay kaay may la yow wuy dolli ma dolli ma ah, mat mat <laughs> nga ku nga ku xam juróom ñeent a jàngal fukk ma ko bëggee mat mat matal yow tey ma matal li ma yor démb yaa si saagur baba yaa saagur tey lay bëgg e man mii bëgg waaw man Malick Ba Diop jóge Njaay sambi xim Njaay bi ko tudd damel deñ ba nga ma tay bàyyi xoolal maa di ba jëwel xoolal man mii lay bëgg maa di ba jëwel waaw buyu ma marsuwaasa ah yaa mono ma nopp la pourquoi ça e xoolal bëggante gi waaw koy biral moo tax pourquoi ça waaw e li ko ma nopp la pourquoi ça man dama la e

liggéey na ko nag yow liggéey rek ngay wax am na lu gën a garaaw loolu Collé lu gën a garaaw waaye nag sama diggante ak yow lay yem dama nettali xam nga loolu hmm. waaye bàyyi ngay def nag est que xam nga Pape Cheikh ak Bijou dañuy génn génn waaw <laughs> loolu moom am Bijou bëggul Pape Cheikh xaalisam la ko toppee ak sig sig tour xam nga moom yooyu lay wër te Pape Cheikh am na ku muy génn Jasmine xale bu rafet macha allah Collé du man maay liggéey ak ñoom moom dëgg la. dofuma te sax nit ñi dofuñu comportement yi ñuy am ci plateau bi tàggatoo beeg ma biche ak moo chéri ak mon bébé mais les gens ne sont fii kenn doful ñoom ñaar dañuy génn te sax li koy firndeel xam nga mooy lan ko est-ce que xam nga Pape Cheikh dafa ëmbaloon bijou. ëmbal waaw. la ilaha illallah lii nag mooy fi bii daal tasaaroo na carte yëpp nee na rajax. ba yëf ko rek may ma rek Collé may ma may ma rek Collé may ma waaw